bisimilah. dal leen ak jàmm ñu dikk ngeen ci li gën a fës ci yéenikaay Sud Quotidien la ñu koy doore muy xëy di kaat ci conseil supérieur de la magistrature ñu ne ni démb nag ki nga moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daanaka lépp la chamboulé noonee la ko Sud Quotidien xamle mu ne le doyen des juges d'instruction Oumar Mahom Diallo le procureur de la République Abdou Karim Diop le juge Mamadou Seck ñoom ñëpp yóbbu nañ leen Tambacounda foofee la leen njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di affecté le président de la cour d'appel de Dakar Amdi Diouf ñoom itamit remplacé nañu leen Mouhamadou Mansour Mbaye moom la ñu nommé premier président de la cour suprême ki nga xam te moom mu di Ibrahima Ndoye moom mooy nouveau procureur de la république Sabassi Faye nommé président du tribunal de Fatick noonee la ko journal Sud Quotidien xamle Walfadjri Quotidien dikkaat ci loolee nga xam te ni moom la ñu jàppee chamboulement bu magistrature bu Sénégal mu ne cour si tribunal purge magistral de Diomaye ki nga xam te moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal dina indi yu bëree bëri ci wàllum justice mu ne les bourreaux de Pastef isolés à Tamba ñi nga xam ni ñoom ñoo doon not waa Pastef ñoom ñëpp la boole yóbbu foofee ca Tambacounda sànni leen foofee noonee la ko Walf Fadjri quotidien xam ne trajectoire du nouveau patron du parquet de Dakar Ibrahima Ndoye ana mooy kan fan la jaar lan moo nekk ay jàllooreem ci biir réewum Sénégal journal bi di Walf Fadjri dikkaat na ci ca na mu gën a yaatoo les échos yéenikaay ci mbir moomu mu la magistrature l'heure de compte ak toppaate moom ki nga xam te ni moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye indi na ay coppite yu bëree bëree bëri ci li nga xam te moom moo nekk wàllum yoon kii di Maam Diallo Abdou Karim Diop Mamadou Seck ak Mamadou Cissé Fall Ila Tamba noonee la koy journal bi xam ne Abdoulaye Bassa Bassi Faye Ousmane Racine Thiam ñoom itamit daanaka gën nañu leen a dëgëral gën nañu defar li nga xam te moom mooy seen toogaay Ibrahima Ndoye bombardé fait l'unanimité ki nga xam te moom moo di Abdou Aziz Diallo un doyen des juges rigoureux respecté le juge des pôles judiciaire financier nommé bonjour la traque li nga xam te moom moo nekk traque buy boo moytul nag dana tàmbali noonee la ko les échos yéen i kay xam la revanche des vainqueurs noonee la ko las quotidien xëy titré mu ne conseil supérieur de la magistrature fi mu toll yi nga xam te ñoo yor nguur gi jamono ji la nag ñu ngay fayeeku ci ñi nga xam ñoom ñoo yoroon yoon ci biir réewum Sénégal doon dal ci seen kaw doon leen teg lu mittee mitti ndax na ci ñooñ moom moo di ca Tambacounda journal leen lu dul ak payonto ak ñi nga xam te ñoom ñoo yoroon nguur gi rawatina nag yoroon lu jëm ci wàllum yoon l'observateur yéeni kaay dikkaat ci mbir moom mu ne conseil de la magistrature entre récompense sanction et li nga xam te l'observateur jàpp na ko ci mbir moom mu ne les nouveaux visages de la traque qui s'annonce ñi nga xam te ni ba ñoom ñoo nar a tàmbali lii di topp ñi nga xam te ñoo nekkoon ci nguur ga dana tàmbali l'administration centrale du ministère de la justice comme un daanaka fa mu toll nii daal ñu bëri na ñoo xam te dugal nañ leen ci biir frigo bi mu ne cas de fait jaser tous les magistrats qui ont rendu une décision favorable au leader de Pastef premier ñi nga xam daanaka dañu taxawaloon ay dogal yoo xamante dafa topp ñi nga xam ñoom ñoo di waa Pastef daal ñoom itamit gën nañu leen a waaye tamit APR moom mu ngay dénoncer li nga moo di une justice vengeance d'une vainqueur et la neutralisation des adversaires la nga xam te ni waa parti APR jàpp nañu ko jamono ñoom ñoo fi nekkoon waaye tamit ci kanamu justice bi ay nit ñoo xamante dañu fa nar a nekk rek di doxal la nga xam moom moom la waa Pastef ak nguur gi bëgg direct news ñoom ñoo ko doon daan nekkoon ci yoon Sénégal ndax nag bëri ci ñoom jël na leen yóbbu leen foofee nga xam ni moom moo di ca Tambacounda lii quotidien moom itamit dikkaan na ci mbir moomu le mu ne le grand chamboulement Maham Diallo Abdou Karim Diop Mamadou Seck affecté à Tambacounda ki nga xam te ni moom moo di Abdou Aziz Diop moom moo di nouveau doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar waaye tamit ki di Ibrahima Ndoye moom la ñu def procureur de la République Mamadou Mansour Mbaye premier président de la Cour suprême mu mel ni kon mbir mi nga xam te daal nemmeeku nañu ko ci jëlaw ñeel wàllum justice bi ci biir réewum Sénégal fi mu toll nii bëri na chamboulement noonee la ko lii xam ne waaye tamit waxaat nag ci lu ñeel wàllum ouverture de la section extraordinaire mardi assemblée nationale bi fi mu toll nii se chef de l'état fi mu toll yi nag xaaratuñu moom moo nekk xalaatu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax nag ñoom danañu amal li nga xam te moom moo nekk session extraordinaire ni ki talaata ji noonee la ko journal bi daal di xamle yor yor quotidien moom itamit dikkaan na ci conseil supérieur de la magistrature mu ne le balai de Diomaye nettoie le tribunal li nga xam te moom moo di bale ba ñu yëkkati woon daal ni ngir jub jubal jubbanti daal di nañuy bale tribunal ba mu set wecc ñi nga xam te ñoo fi nekkoon ay kilifa ci wàllum yoon te ñu bëri nag doon leen ngaañi ci nañu doon doxalee rawati rawatina nag ci jamonoy Macky Sall daal dinañu koy bale ba mu set wecc defaraat ko bëri na ci ñooñ ñoo xam te jàppoon nañu ni ay juge yu Macky Sall lañ yóbbu dañ leen foofee nga xam moom moo di ca Tambacounda Ibrahima Bakhoum ak Amdi Diouf ñu ne nag di Capitole à la Rostar Payen noonee la ko journal yor yor xamle bés bi quotidien nañu conseil supérieur de la magistrature de Diomaye fast track ndax nag ñu ngay tàmbali li nga xam te moom moo di track bi ki nga xam te moo di Ousmane Diagne mise sur le duo Ibrahima Ndoye Moussa Thiam au parquet de Dakar le l'attraque Abdou Aziz Diallo nouveau doyen des juges la punition pour Oumar Maham Diallo Mamadou Seck Abdou Karim Diop Hippolyne Angélique Ndoye Ibrahima Bakhoum et Amdi Diouf au frigo ki nga moom moo di Mamadou Mansour premier président de la cour suprême coup de a à Abdoulaye Ndiaye la récompense pour Sabassy Faye Ousmane Racine Thione l'APR dénonce les indices graves et concordants de la prochaine chasse aux sorcières ñi nga ñoom ñoo di waa APR nee nañu fi mu toll nii a am magistrature Diomaye opère un gros chambardement fa mu toll ni daal ki nga xam te moom moo di njiitu réew mi lépp la soppi libération quotidien dikkaat na itamit ci mbir moomu la ci na mu gën a yaatu mu ne première réunion du conseil supérieur de la magistrature sous Diomaye les grandes lignes d'un vaste mouvement cour suprême une injustice à réparer mu ne foofee nga xam te moom moo di Jean-Louis Paul Topin comme procureur général Maham Diallo doyen des procureur de Dakar Mamadou Seck nekkoon juge du deuxième cabinet Mamadou Cissé Fall nekkoon président tribunal de grande instance hors classe de Dakar ak El Hadji Issa Ndiaye mi nga xam te moom moo prononcé woon na condamnation Ousmane Sonko ñoom ñëpp jël nañ leen yóbbu leen foofee nga xam te ni moom moo di ca Tambacounda le juge Sabassi Faye ak Ousmane Racine Thion ñoom naka daal dinañu gën a defar seen toggaay gën a yeesal li nga xam te moom moo di seet yi ndomboy moom mooy nouveau procureur de Dakar Moussa Thiam moom moo nekk procureur adjoint de Dakar libération yéeni kaay di ñu xamal yi tamit ni ki nga xam te moom moo de Saliou Dicko procureur bu tribunal de Pikine Guédiawaye Cheikh Diakhoumpa procureur bu Rufisque du Samba Thiam procureur Thiès Augustin fay procureur bu Mbour Baye Thiam procureur bu Saint-Louis les anciens substituts d'Ousmane Diagne au parquet de Dakar reviennent en première ligne institué depuis août 2023 le pôle judiciaire financier désormais fonctionnel dana tàmbali ab liggéey Le Soleil yéenekaay moom xëy na dikkaat yi li nga xam te moom moo di l'accident de la route yi nga xam te nemmeeku dañ ko ci biir réewum Sénégal mu ne nouvelle stratégie de sécurité routière constat d'urgence le facteur humain principale cause des accidents la nébuleuse des auto-écoles le cadre réglementaire à rénover li nga xam te ni daal le soleil yéenekaay jàpp na ni moo waral l'accident ñu bëri yi nga xam te am na ci biir réewum Sénégal bokk na ci na nga xam te noonee la nit ñi di doxale waaye tamit lii di auto-école yi joxe permis de conduire ñoom itamit na nga xam te moom mu nekk seen taxawaay loolee le soleil yéenekaay taxawoon na ci def ab jàngat mu ne nag naka la ñu mën a def ba li nga xam te moom moo di yooyu leel accident wàññeeku Dakar Time moom xëy dikkaat ci lancement des productions et de vente d'énergie attribuées par la commission West African Energy mu ne un avis favorable motivé jamais contesté noonu la ko Dakar Time xam ne l'éveil quotidien nañu centre de navigation de l'aéroport Léopold Sédar Senghor dans l'attente des aiguilleurs du ciel ñuy xaar ñi xam ñoom ñooy saytu jaww ji ci mbir moomule journal bi dikkaat na ci waaye tamit l'éveil quotidien nañu kër la nation maître Massokhna Kane SOS consommateur ci biir l'éveil quotidien nañu la RTP doit être forte pour réguler am ndëgër lay bu am solo ngir nag mën a taxaw ñi nga xam te ñoom ñoo di consommateur l'info quotidien moom itamit daal di xëy mu ne ville fleuriste au Sénégal et en Ouganda le rêve brisé de Akon ki nga xam te di Akon bëgg-bëgg ba nga xam te amoon na ko muy tabax genn pa dëkk bu yees bu taaru loola fi nga xam te moom moo di ci Sénégal ak ca Ouganda mu ne yooyu lay gént nag mujj na nax saay l'info quotidien dikkaat na ci waaye tamit wax ci lu jëm ci wàllum acte par le régime mu ne nag ñi nga xam ñoom ñoo di waa APR daal fi mu toll nii mer ba futt la def ci nga xam te noonee la Sénégal di doxalee jamono ji ndax nag la nga xam jàpp nañu ko mooy ñi nga xam te ñoo fi nekk jamono ji di ay kilifa la ñu bëgg mooy topp waa APR ñoom ñëpp daal di leen gundu la noonee lañ ko xam ne ci biir l'info quotidien gestion des municipalités Moussa Balla la nga xam te ni moom la bëgg ngir lu jëm ci wàllum a Abdallah Fofana xamle na ko ci biir journal bi 24 heures yéenikaay moom itamit daal ñuy xamal ni ki nga xam moom moo Citizen li Ousseynou Ly porte-parole de la présidence de la République mu ne sacrée nouvelle opposition apeurée ñi nga ñoom ñu nekk ci kujje politique gi daal fi mu toll nii daanaka tiitaange la ñu nekkee jamono jile te tamit ñoom na nga xam te noonu doxale ci wàllum kujje yéeme na lool noonu la ko journal bi bokk na ci Awa Diop Ndiaye Salma Fall ak ñeneen ñoo xam te daal la nga xam te ko mooy seenub liggéey ak foofee la la tribune yéenikaay moom itamit xëy di kaay ci la paire di oui à la reddition des comptes non la nga xam moom li nga xam te moom moo di conseil supérieur de la magistrature indi ay coppite ci lu jëm ci wàllum yoon mu ne nag ñi nga ñoom ñoo di waa APR daal pare nañ ngir reddition